dikkati naa dëgg-dëgg gàmmu am na de waaye ras dim am na ci réew mi tribune yéene kaay ne ma laaj ba mooy lan moo waral ñu bëgg nag dëgg-dëgg toroxal ba mu ne tott moom Ousmane Sonko mii leader bu Pastef la ñu daal di jël ay photoom ne ko dajj nag ci réseaux sociaux yi ñëpp di gis tribune yéene kaay naan man gendarmerie lan moo tax mu bëgg toroxal Ousmane Sonko ay foto yoo xam ne ñu ngi ko jël ci seen biir blende ñu ne déeta waaye waxtu wa nga xam ne nee na ñoo yaay dañuy libéré Ousmane Sonko mu dugg ci biir këram moom Ousmane naka la ci blende bi ngir di ci woto bi dafa daal di mel ni ku fa xastalu mel ni ku xaw daanu ma ne la vidéo yooyu yëpp ñu daal di koy jël jébbal ko ku ñuy wax Anita kan mooy Anita TV kan moo làqu ci ginnaaw soxna soo see tribune yéen a kaay lii la xëy sam pop laaj 24 heures yéen a kaay mel ni ku naan ko réew mi fii la toll def lu ne weng te dara du la ci fekk fii la toll barki Dembo Njaay la ñu attaqué cortège bu Bougane Gueye Dany tribune yéen a kaay ne ko kaay maa xam cortège bu Bougane ba kay ca Kaffrine ko daal di caxat caxatee 24 heures yéen a kaay naan ko ci focus village la Bougane Gueye yooyu dañu a kaay ne ko jëfocus village boobee la doon wéyal dem di ñu daal di koy caxat-caxatee lu toll ci ñeen fukk di koy fekk moom ak cortège am ca Kaffrine di leen di attaqué moom Ousmane Sonko di ñaawlu attaque yooyee Sonko ni ki démb ba muy janook askan wi naan leen Bougane Gueye dañuy attaqué nan ko ca Kaffrine Bougane Gueye dañuy ni gees daal di koy jiiñ ay nervi yu Abdoulaye Sow lan la ci gendarmerie war a keneen def tribune yéen a kaay naan kon waaye Bougane Gueye dañuy ma nga ca la mu nekkoon ñaari million carton yu xool xonq moom la fas yéene sédd sénégalais yi naan leen joxoñ leen ko fu ngeen toll naan président Macky Sall du am ñetteel bi mandat waaye tam dialogue bi ci boppam ànduñ ca la mandat naan kon gars yi nag ña ngay wuy ji tribune yéen kaay ne ko mani la wax ji wax ji mooy lan moo tax gendarmerie bëgg toroxal Ousmane Sonko direct news ne en tout cas takk deri moom daal dina ñuy freiner Ousmane Sonko bien bon xam nga daf fi woote karawaan boo xam ni sigi coor lay jógee daal di bàbbeeku ñëw ci Ndakaaru takk der yi ne ko coppet moom Ousmane Sonko daal di ne rap le quotidien le quotidien naan kon fi mu ne kay Sonko cib ku wër fa la ne dañ koo daal di bloqué këram du génn te kenn du génn gis ko terewul Sonko ngay woo xale yi ci fitna naan leen résistance réew mi quotidien naan kon bloqué nañ ko këram de waaye ndakaaru jël joob sàngmaar moom tàkk na critique yéene kaay naan kon Sénégal nag mbaa ci kawo dañoo tëj Ousmane Sonko ci këram réew mi daal di tàkk ni ki démb le témoin yéene kaay ne ko tegal foofu sa loxo ma xamal la ni nag réew mi tàkk na këru ministre Serigne Mbaye Thiam ak Abdoulatif Ba taal nañ ko ñaari bis taal ko ca Liberté ay installation yoo xam ni ngir BRT bi lañ caxat caxatee toj ko ñaari station Total ñu ciblé leen ay quartier ci mel ni Liberté 6 Sacré-Cœur 3 ak VDN daal dina ñuy yàq tali yeeg lépp lu fa nekkoon ci kaw taliba Antoine Félix Diome ak Abdou Karim Fofana ngay indi ay gindi waa Cogère naan gatsa gatsa ñoom it la ñu woote fayu critique yéen a kaay naan mbaa demunu ci kawoo laa ne l'observateur naan kor mani la ba kor bi yaaru jumaa ji nekk Sacré-Cœur dañu koo daal di taal critique ne ko mbaa jëmunu ci kawo ndax ñaari fana des ci wér dig ba ca àtteeb aji saar ba 24 heures yéene kaay kan mooy wax dal ci réew mi ndax nag fi mu ne soxla nañ ko lool réewum Sénégal tàng na sursoi naan kon bari nay tàkk-tàkk bari nay deret ju tuur ci réew mi fan fanweeri nit ak ñeent jàpp nañ leen ca Tamba fukki nit ak juróom ca Kolda réew mi ko quotidien naan maan jàpp nañ ko waaye dina metti ci ñoom wala Ousmane Sonko mii day dina mel ni xal woo xam ne teg nañ ko seen digg loxo l'info y kaay naan maan waaye ñoom i dawuñ ci de képp koo xam ni F24 nga bokk wala ca yeewi démb ba Ousmane Sonko dañu la gaza ne la jóge fii le mandat yéene kaay naan man mbaa ñëwam gii ci ndakaaru juralu ko guuta moom Ousmane Sonko le peuple quotidien naan man tëj nañ ko këram ñaar ci pistoleem yoo xam ne am nay munition ñu daal di koy jàpp ci moom jàpp ci Ousmane Sonko ay lance pierre ay téléphone portable am ñu jàpp ko téléphone yi ba ñu ko fuuyee gis ci ay mbir Walf Quotidien naan man jàpp nañ ko waaye ndakaaru jël job sangomar jaxasoona seenu kawoo dëgg dëgg moo daal di am ci ndakaaru Sonko ci résidence surveillée mbedd maa ngay tàkk Félix Diome ci libération yéene kaay naan bu amee ku caxat caxatee loi bi état bi ci boppam daf ciy jëli pexe Ousmane Sonko naan askan wi ma ne la yéen a mën a jeexal lii ndax bu ngeen nee ñu daal di may jàpp teg ma loxo réew mi doon fi jaam dana gën a sedd nangu nan sama ñaari téléphone jël sama ordinateur na ca des kay mooy génn ci mbedd mi jàmmaarloo ak ñoom lii ko di daal di xëy sampub laaj mbaadu Ousmane Sonko nag coow li coow li mooy ay mbiram dafa nar a jeex gaaw deux minutes pour lire l'essentiel naan taal nañu këram day waaye Serigne Mbaye Thiam fi mu ne nekkoon ci tànku joyanti parti socialiste fas yéene nag teg ci loxo ba dara lu ñaaw du jot parti bi tribune yéen a kaay naan maan booba bugaan na nga naan dialogue ba bu ca kenn dem ñaari million ngu carton yu xonq lay fas seddale séddale képp kuy dem ci dialogue ba ñu talal la ko ca boobu la dialogue day moo ne Boubacar Camara mii xam le ni em bii di PSC jéngu tabax jot nañu invitation daal dinay xam le ni fa mu nekkoon jogu ca dafa bëgg ñeneen ña nga xam ne wuy ji wuñ dialogue bi di waa F24 ñu daal di dialogue ñoom ci seen biir ko ànd ak président Macky Sall wuy ji ñoom it dialogue ci seen biir ñu xool la nga xam ne boor bu nekk jël na ko ci saafara ngir Sénégal gu ñoŋ ñu teg ko ci table nag daal di jël la gën daal di koy waxtaanee gannaaw bi ñu xool ñett ci médiateur ak ñaar ci mémorandum fas yéene nag sowe Sénégal ci kaw nga xam ne fas na ca yéen soobu sóobu le mandat yéen kaay naan maan boobu la dialogue Aminata Lô Dieng def cay wuy ji mag ak partem bi di appel 3 xam le nañ ne dialogue ba nag dem munu ca ngir amnistie kenn ndax nag amnistie Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall mooy delloo réewum Sénégal mujjee naan dañuy dialogue ngir Sénégal moom boppam dañuy dialogue ngir tension yi am ci réew mi daal di wàññiku dañuy dialogue ngir njëg yu cher yi daal di wàññeeku dañuy dialogue ngir justice moom boppam mën a teg mbiri ci yoon waaye du ñu nangu mukk ñuy dialogue ngir nag ñoo xam ne dañoo sàccalalu askan wi ñu leen koy jéggal le point yéen kaay naan man Pape Modou Fall ñemu woo parti yi jóge nañ ci fukk ak juróom egg fi mu ne ci ñaar fukki parti ak ñeent ci dialogue boo xam ne suba war na door ci réew mi booba lii ko dajee mag may xamal ne li xew ci Ndakaaru day dafa mel ni waa Medina Ndiaye béyguñu ko Sow maire bu Walalde coordonnateur bu Puma daal dinay mobiliser ca Podor askan yi bàbbeekoo ci dëkk yéeg dëkkaat yi wuy ji ko Moussa naan leen coow li lu muy bari bari ñaareelu juróomi at bu président Macky Sall lañu bëgg ci réew mi tribune yéene kaay naan man soxna yi Benno Bokk Yaakaar ñi ngi woo Sall ci mu sampaat ndëndëm tribune yéene kaay naan kon waxtu woowu réew maa ngay jëx-jëxi taal gaa ngi mel ni tulleeg maale source a naan kon deret ji di jambaa jolle tribune yéene kaay naan monseigneur Benjamin Ndiaye naan réew moo xam ne jàmm amu fa réew moo may day tabax ko dina jafe lool ndax moom mooy ciment bi nga xam ne mooy tabax dëgëral dëgg dëgg dund ci société ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew